rafetlu seen àndin ak la meilleure chaîne du net la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk leader yi ñuy bàyyi xel ak fépp fu ngeen mën a ne ñu ngi am mbégte kontaan saa su ci di janoog yéen di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen choix renouvelé du ñu jug ci di am mbégte ak saa su ak képp koo xam ne rek am ngeen choix ci li nga xamee ni euh, mu ngi koy yëngu ci lépp loo xam ne tamit lu leen soxla ci seen dundin ñu si am ay jotaay yu leen wéttali ci loola di li sabab euh, suñu benn yaay bu ñu dootul présenté quand même si culture ñu xamoon ko mu indi woon euh, touche am solo ba léegi sax muy mama Thiaba Thiès ñu fas yéene am moom jotaay boo xam ne certainement du ñàkk dina wax ak euh, ñu génération bi génération bu bees bi ak lépp rek loo xam ni aju na ci culture rédaction Senbuzz fas yéene ko waxtaane ak moom euh, di li sabab ñu seet si ko euh, maman Thiaba Thiès ñu ngi lay nuyu rédaction Senbuzz gannaaw bi ñu rafetloo vraiment fas yéene am ak yow jotaay di la gërëm ci daral beeg disponibilité bi jërëjëf maa ngi leen di fay bu baax a baax di rafetlu tamit tamit Senbuzz hmm. war a am ak man maa ngi ci kontaan trop di rafetlu hmm. seen ñëw fii tamit di nuyu sénégalais yëpp tamit bàyyiwuma kenn fii ba bitim merci beaucoup alors sama jigéen code multi service borom Rufisque moom moo ma génn ak man ci chemise bi code maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ay numéro téléphone am ñu ngi leen koy affiché jamono ji merci beaucoup grand leader alors Mama Thiaba euh, ñu bari dinañ soxla xam turu Thiaba Thiès surnom la wala lan moo waral euh, Thiaba waa waaw Thiaba Thiès sama première cassette bi ma njëkk euh, liggéey ji ànd ko ak ku baax ku ñu wax alhamdu si yàlla moom na ko moo ma tudde woon benn cousine am Hmm. waaw ni man tudduma Cabe Thiès. d' accord donc tur tur la boo xam ni aar moo ko jox rek ah. aar moo ko jox <laughs> d' accord. Mhm. alors ñu def ba nga xam ni c' ah, ñëpp turu turu Cabe faral di wax. quand absolument wallaay bien am fu may dem sax di lijjanti kayit bu ma ah? ma ne ah tudduma <laughs> alors Fama Fall laa tudd. très bien mm. alors euh, bu fekkoon ni tamit euh, gis nga ni jamono ji nga xamee ni évolution am na ci li nga xamee ni mooy culture ak euh, ak série yi nga xam ne moom la ñuy gën di découvrir léegi lan nga gis ni moo nekkoon ci yéen ba ngeen mën a incarner role bu nekk ci mu jëm ci ànd ak éducation ànd ak jàngale te léegi amatul ci li nga xam ne mooy série. waaw dox na léegi bari na. film yi bari na mm. macha allah sama xaalis na télé yi bari na loolu bokkoon na ci lu doon ñaan yàlla. ndax xatoon na ba mu nekkee ñaari tele mm-hmm. waaye tey jii macha allah yal na yokk bari na euh, bari na mais segguñu ko. Mm-hmm. dañ koo seggul li may gis tey jii man ñemewu ma ko woon mais tamit nee naa la boo ko toppee ba ci biir artiste du ko def. Mm-hmm. déedéet artiste. bu galéré wu ci mbir mi rek daj ci lu ne fayeeku ci ay 10 000 francs te naan mi ngi dox dem ba mu yàgg nga fayee ko 25000 naan yaa gaañ. boobu da ngay muñ rek waaye xam nga ne di ci mës a am dara mm-hmm. ñooñu duñ ko def cest à bu njëkk dafa am lu ngeen doon jiital yéen mooy am bëgg-bëgg ci li nga xam ne mooy culture moo leen nee naa la 10 000 mm-hmm. moo indit lépp mm-hmm. sa toogaay bi 25 000 yooyu ko indi moo indi turu Thiaba Thiès ku nekk ku nekk xam ko fu nekk tamit 25 000 francs yooyu moo ko indi 25 000 bañ ma ko fayee daf ma neex li ma doon yàkkamti mooy gis ko ba xam ndax lu baax la wala déet far yàlla dogal muy lu neex askan bi hmm. waaye bokkul ak li may gis tey bokkul hmm. waaye ba tey li may gis tey nee naa la artiste du ko def ñu bari gis ni du problème mu yi mais bu njëkk yéen œuvre yi ngeen daan def dafay ànd ak éducation ak jàngale mais léegi euh, producteurs yi lenn moo leen intéressé mooy am xaalis ci mbir mi est-ce que du loolu la tamit quand même waaw ndeysaan ñu ngi liggéey sax hmm. ñu ngi liggéey bu baax a baax wax dëgg yàlla yàlla na yokku waaye su sañoon dañuy teg seen tànk fi ñu ko tegoon ñun ak man mii ñi nga xam ne ñoom laa fi fekkoon. Mm. fa ñu ko tegoon. ba ma ñëw ba dab leen ndax mënumaa àgg fa ñu àgg mukk nag mu ñu fi jiitu ñoom nañu ko teg foofu. da ngay gis tey barki démb laa koy waxtaane euh, comme naanaam nekk ci kër théâtre bi ci kër la. Mm. man mère sama borom kër samay doom samay goro foofu dañ gis dañ fay génne ay idée di fay yee Sénégalais yi. parce loolu mooy suñu dund ñun kii sa goro la yaa xam noo jëflanteeg moom moom baax na wala baaxul kii sa doom la du fi génn loolu amatul. gisatuloo sax benn pièce bu ñu la ne kii ñu bindaan la ci biir pièce bi mënta hmm. am bindaan ndax ku ñëw da ngay teg sa safonatale ba mu daal si ci gannaaw nga pose say xaf pose say ongle sol sa double talon hmm. bindaan mënta am foofu kon gis nga ni euh, li mu doon représenté bu njëkk muy ànd ak jàngale ànd ak éducation bu normal léegi œuvre yi ñuy faral di gis wala série yi ñuy faral di gis daanaka bari wu ci de xam nga jàngale yaramu neen du ko def waaw dafa wax ju vulgaire itam du ko def jàngale wax ju am yar moo koy def hmm. sol col mu jot nekk mère de famille yaa xam wala goro nga wala doom ñu lay éduquer say morom di ci jànge ak keneen ak keneen. Hmm. loolu amatul daal. Hmm. alors lan nga jàpp ni mooy le vrai problème comme ni koy faral di waxee da ngay gis ni euh, certainement scénariste yi lay nekk wala euh, jamono moo toll foo xam ni tamit ah wax dëgg yàlla lii rek la la askan wi soxla Mama Thiaba. <laughs> xam nga mbir mi casting la léegi casting la moo tax. Hmm. waa ki ko mën ak ki la neex du ñu benn. d' accord da nga jàpp ni léegi maa. ki la neex rek la waaw waaw ki ko mën dañ ko fee bàyyi. Ah. waaw seet ka la neex. lenn li dama leen a jëf yenn yi nga ngeen nit ñi di ko wax ak a coow artiste du ko def. xanaa kon looloo waral chaque euh, série bu génn rek nga gisaat ay actrices ay têtes yu bees ay xale yu bees ak. certainement loolu la léegi amatul ay acteur wala actrice yoo xam ni. Mm. dañ leen a xam ci domaine bi. tax ñu am choix à chaque fois ñu film daw ba jeex ñaata saison doo ci gis tête boo xam. dëgg la baax na c'est bien boo ban kontaan naa baax na parce que liggéey bi suñu ci amul woon ñu nu ci dab ñu xam ne kon li liggéey baaxul parce que ñun ñoo ngi dab ñi ci njëkkoon a jaar ñoom la ñu dab ci seen tànk ñu xam ne ñoom li ñu doon liggéey baax na ñun tam ñu ñëw fii ñu ñu war a dab tamit euh, nangu naa bë bëgg naa mu yaatu mu yaatu parce que aar nekk na loo xam ne garab la ci kaw lay fekkantee d'accord naa mu yaatu waaye su dee yaatu la nga gisoon ba tax nga bëgg ko ba topp ko defal loola hmm. mais ñoom artistes yi defuñu ko de defuñu ko man dégg ma gis loo xam ne dama naan ana kan moo doon réaliser lii. Hmm. ani réalisateur bi. kii def dañ ko def loo rek. alors mais est-ce que du ñoom jamono moo toll fii rek. jamono moo toll ci ñu wan a wan askan wi c'est vrai que xëy na moment bi ngeen di jouer ay théâtre ak yooyu. Mhm. daaw ñu découvrir yu bari ci société bi maanaam boobu yar am na eh, demet mais léegi est-ce que du dañ toll fii rek xale yi daanaka loolu lañu ñu foofu la jamono toll ngir ñu xamal xale yi ñaawteef yi am léegi moo waral aussi producteurs yi am responsabilité boobu. kon ñu bàyyi woon fi novelas yi kon mënoon nañ ko fi bàyyi. ñoom mm. tubaab yooyu xar géppin yooyu fi daan jaar. Mm. te gisatuma leen. te ñu ne léegi dañ ko fee dindi defe naa parce que man gisatuma ko benn télé benn fii dañ ko bëgg a remplacer ak série sénégalaise waaw hmm. <laughs> da nga ni bu doon loolu rek la mënoon nañu fi bàyyi série tubaab ya kay waaw hmm. tubaab ya man xaw ma ci woon benn série sax xam nga dama leen mos a fiire hmm. mënumaa nekk Sénégal di liggéey di ko jaay télé yi ñoom ngoon gu ne ñu teg leen gone yàq seen reer ngir ñoom akama leen a fiire maa wax de. Hmm. maman Thiaba nga bokk ci euh, suñu maman yi nga xamee ni ba ñuy ne ba ñuy door a dugg ci milieu bi quand même amoon nañu taxawaay bu am solo bokkoon ci jigéen ñi nga xame ni ràññee woon nañ leen macha allah quand même ci seen ci seen période. ndax évident woon na moment boobu noonu bi nga ciy door dugg ak euh, tolof tolof yi nga xamee ni certainement mënul woon ñàkk ci milieu bi nga ciy def théâtre yaa ngi koy fàttaliku aussi. loo xam ni man marqué na la ci moment boobu nga dund toog ak suñu waa samay doom ma ne leen xale euh, bu yeewul mënul nekk star star dafa diis ak diis man bi ma bi ma bi ma ciy dugg magum yàlla mu jëmmalaa 2003 laa ci def laa ci dugg gis nga aar bi boo amul xel dama la ne lu nekk da la ciy dab. dinañ la proposé yoo xam ne tey boo ko tourné woon mbiru promotion canapé yooyu kon lu bees moom donte ni xale yi waaw yu xale yi ay xale lañu moo tax ñu leen di proposé promotion canapé waaye doo fekk jéeg bu juri doomam taaj ko nga di ko ko wax waaye di nga ko jox benn rôle boo xam ne ci film su ko tourné man Cheikhul Khadim laa yaakaar tey ak ëllëg alaaji baaraay sama sëriñ adduna bépp xam nañ ko su ma ko tourné woon tey waxuma la tarixa bi ma bokk waaye damay gën ci diine l'islam yow jamono jooju proposé woon nañ la bu baax sax ma toll ci war koo mën a def nag ndax la lañ ci taamu woon lépp man xam naa ne mi ngi ci man alali àddina jaral na ma lu yàq sama tey commencé yàq sama tey jëm ëllëg damaa am ay doom gannaaw gi bi ma bi ma duggee ci aar léegi am naa sët su ma ko defoon tey ji sama sët a ngi nii du jóg ci tele lu mu yàgg yàgg daf koy gis da lay ci biir mais yaay bañ. man hmm. dama am choix man man caba du lépp lay liggéey. Ah. alors beneen phénomène mooy xale yi nga xamee ni récemment ñoom la ñuy ñu ci bari si ñoom dañuy am problème koo ci wax ak benn ñaar yoon mu ne la góor ñi dañ ma sonal promotion canapé yi léegi booy yi aussi ñooy dem Dubaï ñu leen di invité des trucs comme ça ñenn ñi quand même du ma wax d'une manière générale ñenn ñi sax euh, tuddee leen ni nga baal ma si wax ji ay caga de luxe lañ ñu bari ci gis-gis boobu lañ am ci ñoom quand lan nga jàpp ni moo waral ñu dem ba image yu jigéen ñi toll foofu ci li nga xamee ni mooy cinéma mu mel ni kon li ñeneen ñi di wax fekk yaa war a tourné yow war ngaa tourné benn film mu dégg ko ñëw pour nga boole ko ci moom moo ñëw pour nga boole ko ci mais yow fekki woo ko pour boole ko ci su la neexee nga canapé ko xaw ma canapé lañ koy xaw ma fotoy loolu ci neex na bu la neexee nga teg ko ko. Hmm. ndax moom xaarul ba mu fekk si ko image bi fekkiwu ko moo fekk si image bi loo ko ci teg rek day jël. ndax bëgg naa génn xëy na. Hmm. Hmm? alors mais ndax loolu tamit mënul nekk problème bu ñu demee ba nga xamee ni jamono ji aussi li ñuy dund ci ñoom gis nga ko daanaka ko xew ñaari at ñetti at nga xewi ñu leen di dugg euh, dégg euh, mu bari lool ci ay ñaawteef ak ay mbetteel yoo xam ne askan wi dañ koy am ci ñoom. bu fekkoon ni tamit éducation am na ñu jiital ko door a dugg moom ci culture door a def cinéma gëm nga ni loolu dina leen arrivé wala da nga gis ni milieu la boo xam ne moom kenn mënu see rëcc aussi. an a dañ cee rëcc carrément mais xam nga li leen cee rëcc wax nga ko léegi éducation dafa am solo bëgg-bëgg soo demee ba mu la la ràtt poñe fu mu la jëmale rek ngay jëm te yaaw yow yaa ñëw ne bëgg nga bëgg-bëgg boobu de moom moo lay manipuler de yow dootoo ko manipuler fi mu la jëm loo rek ngay jëm te dara àddina jaru ko. maman beneen mbir boo xam ne xam naa lu jëm ci société bi la d'une manière générale ak tamit suñu mbokk jigéen ñi leneen loo xam ni maman nga nga bokk ci ñi nga xamante tamit ay éducatrice ngeen ndax seen i œuvre dañ ci daan jàngee lu bari bari. Mm-hmm. mu nekk phénomène boo xam ne lu bees la ci ndaw ñi rawatina jigéen ñi parce que ñoom la ñuy gën di faral di découvrir donte ne ak ci réseaux internet bi askan wi di ko partagé nga cicatrice yëg-yëg boobu ban yëg-yëg ngay am ci euh, fi nga xam ne ni toll nañ fa léegi ci ak tamit ñàkk valoriser li nga xam ne mooy jigéen ak image yu demee noonu. xanaa naqar ndax man damaa jaboote ay jigéen te ñooñu koy def ñëpp tamit sama njaboot rek lañu ndax man mënatuñ maa jur maay jure rek waaye kenn dootuma jur. am naa ci naqar trop nag te su ma sañoon itam mu nekk loo xam ne lu fiy jóge la même buñ leen dee teg sanction lañ leen ko teg ñu bàyyi ko jigéen. mànga mm. sim bi yàlla denc ay ngëneelam. war naa jomba filmer wu ñu koy partagé dañoo xamul lan mooy valeur jigéen dañ dee xale waaye boo dee magum yàllam jëm hmm. toog ba sa njaboot wër la di la mënal di la sañal di la demal di la dikkal war ngaa jomba def loo xam ne bu ëllëgee balaa ñu laa defal seen xel dem ca loola ñu def malgré rek. Hmm. waaye seen xel day dem ca loola. alors lan nga jàpp ni moo ko waral parce que ñu bari dañ gis ni. jigéen bu demee am choix wu filmer boppam. di ko envoyé nit ba muy mujj si penc mi tamit du ñàkk am na loo xam ni euh, moo ko waral lan nga jàpp ni. moo waral sex tape yooyu. bari léegi est ce que lu mu tudd nga ne. sex tape ah ma ko mën a wax ma ko jéem a wax sax xanaa xaalis. xalaat hmm. naa ne moom la parce que li tax ma xalaat ne moom la dara àddina lu feesut sa poos bii laa mën a jaral nga yàq sa bopp lu feesul sa poos bi fajul sa soxla jarulaa jaral nga yàq sa bopp dara àddina jaru ko maa ngi koy dégg nag waaye bul sama bët bi mos cee dal mm. déedéet mosuma ko gis mm. parce que duma ko seet. Mm, dëgg la tolloo maag loolu sax. alors a seet doo ko seet aussi ndax euh, suñuy yaay ngeen muy maman Thiaba euh, bu fekkoon ni tamit gis nga ni fi nga xamee ni toll nañu fii société bi toll fii rawatina doxalinu xale yu jigéen ñi d'une manière générale ak li nga xam ne ñu ngi koy faral di découvrir ñu nekk quand même ay victimes ci côté yu bari viol ak mbiru sexualité bi mu lay wax ak yeneen ak yeneen lan nga jàpp ni moo manqué jigéen ñi ba nga xamee ni euh, c'est un peu difficile quand même pour ñoom jamono ji nga nga layal leen ci biir penc mi lan nga jàpp ni moo wul tey suba accusé nañ ko leneen suba nangam ak nangam affaire yooyu. moo wane li tax ñu violé ko. Hmm. bu ab dënnu fee seet dell ak ay ween. nga fexe ba góor teg ca bëtam góor góor rek la góor <laughs> góor góor rek la bu gisee nu ko ñoom nopp yaay taxaw bokkut ak yow ndey bokkul ak yow baay te foo ko woo fu la woo nga wuyu ko fa viol du mën a ñàkk. nga wëlbati nag jël sa jëmm ji filmer ko yónnee ko ko. waaye nañu waxante dëgg na góor ñi dañuy lekk xorom dinaa meew. Hmm. kon viol mënut a ñàkk lii di am léegi ñun doo ñu ko dégg bu njëkk daal ay viol yi wallaahi la asim hmm. man léegi laa ko xam sax c'est vrai que maman léegi c'est fréquent ay xel yu am 16 ans ngay am doom boo waxee ñu ne dañ ma violé woon et puis même dans les euh, a bari ni non sama gel woon dañ doon génn consentement moo amoon suñu diggante hmm. mais mu nekk lu fréquent quand même dem ba nga xamee ni sax euh, ñi nga xamee ni ñooy féministes yi kuréel yi booti jigéen ñi dañ gis ni dafa jaadu jamono ji ngir li nga xamee ni viol yeeg njur yi jaarul yoon bari na hmm. ñu def li nga xamee ni mooy avortement accouchement médicalisé maanaam fexe jigéen bi di yàq ëmbam ci loo xam ne dafay ànd ak dikk nga fu ma ñor nag hmm. fu ma nangoon ma yàkkamti woon ñu laaj ma ko gis nga avortement boobu maa ci gën a ñàkka a d'accord maa ko wax fii man ci télé bii seen bës bii hmm. laa ko waxee te duma ko weddi xam nga li tax ka ñu viole moom nga ne baayam moo ko def wala frère am nijaayam nañ ko nañ ko dindi ndax doom ji warul dund pour lan warul dund ëllëgee ka nga xamante ne doomi caba cees la di ndey ja ci kër gi dem yàq boppam ca àll ba ñu mu kan lan ngay mën a xàmmee ni kii ci àll ba lañ ko violé wala ni yaa moo ko violé mm. Mm. ah xanaa ñu ngi indi yàq biir ñu ngi fi gën a dool yàq biir d'accord ma ci tey d'accord ma ci ëllëg wallaay d'accord ma ci ndax noo séparer ki nga xam ne moom nijaayam ak ëmbal wala kii dem sam boppam ci àll ba mënoo koo séparer mm. kon kay ñëpp ngay boole avorté ak ki jëkkëram tukki moom bu ci gën a am ñëpp ngay boole avorté man d'accord ma dangay gis ni dafay nekk loo xam ne boobaa dafay yombal li nga xamee ni <laughs> mooy jigéen ñi ñu mën a am liberté ci seen bopp ah waaw waaw boo ba ñëw ñu yullil la ko kay di am liberté man d'accord ma wallaahi la sim laaj nga ma lu ma bëggoon ku ma ko laaj hmm. jigéen laa ay jigéen rek laa yor ku ci biiroon tey sa baay biiral la nga xam yaag sa biir ay ànd de du ma hmm. avortel kenn man faal hmm. non non ay yàlla tere alors ndax loolu waruñu ko wan a teg sax pourtant li nu nekk ci ñaawteef jigéen ñoo gis ay jigéen ñoo mobilisé wu ay féministe ay jigéen ñoo xam ne dañu ni dañ leen di xeexal àq ak yelleef moo tax ñuy proposé yooyu loolay àq ak yelleef ñoom loolu lañ gis de dañoo njëkk ci yaram yarami neen yi faj ko ba pare ak sàgganu gi ak col mu bon mi doog a lijjanti loolu man d'accorduma alors maman tamit benn point boo xam ne dinaa la ko laaj euh, dafa am benn mbokk bu ñuy wax Aliou Kane borom Rabat merci beaucoup Aliou Guèye euh, depuis Maroc merci beaucoup nee na ndax euh, gëm nga ni éducatrice bi nga nekk maanaam yarekat bi nga nekk gëm nga ni li ñuy faral di wax virginité ak li nga xam ne mooy xale yu jigéen ñi ni ñu mel léegi ci ñàkk kersa gëm nga ni mu ngi am ba léegi ci ñenn ñi. waaw mi ngi am. ñenn ñi nag dañ gis ni originalité bi amatul. am na am na. Hmm. waa ba tey mi ngi am xam nga loo ci gisee ci yar bi la. man duma olof man làkkat laa. kon su ma la nee mi ngi am rek mi ngi am man de yàlla ak yonent bi seede na ne. Hmm. amaguma doom ju ma jaaxal te ay jigéen rek laa bari la benn góor a fi nekk benn doom bu góor mi ngi am mi ngi am sax. mi ngi am ndax ñun ay bàjjan lañu. Hmm. dañuy lal dañuy lal li te léeg-léeg ñu laal li logub këriñ nag waaye léeg-léeg ñu naan li ndox mu sedd nga xam ne koo kooka tubaarkàlla hmm. day fees dell kon ko ndeyam ëmbe woon ba tey mi ngi ci moom loxo yaayam mujj ci jëmmam ja loxo yaayam mujj ci jëmmam ja loolu day am mi ngi am de très ban message ngay jeexale maman yëkkati ko jëmale ko ci askan wi rawatina sa doom yi xel yu jigéen ñi nga xam ni jamono ji daanaka war nañu am taxawaay bu am solo ci société bi te ñu leen di duut baaraamu tuuma ci mbir yu bëree bëri. xanaa di santaat yàlla di sant yàlla bu baax di gërëm sama ñaari waaju di sant Cheikh Ahmad Lamine sama yaakaar di leen wax ne yaay waddu leen waddu leen bu baax a baax bu daray àddina tax ngeen di sàggane seen bopp góor lu ko ëmp lay dabu. lu ko ump mosu koo gis moo koy tax a daw mu liggéey alalam def ko ca waaye lu lamb ci kanamam doo ko jaral ñaari dërëm kon wodduwaat leen ba mu dëgër man maay seen yaay man ay jigéen rek laa jaboote protéger leen seen bopp bu leen yàq seen bopp addinaa ngi ci kanam te way wu rafet yàgg way wu ñaaw yàgg li ma leen di sant daal mooy loolu. maman Thiaba mbégte la woon ci say doom rédaction Senbuzz tey ñu ñëw seet si la donte ni xat nga terewul may nga ñu possibilité mbégte bu amal app la woon vraiment ci am ak yow jërëjëf euh, may kontaan ci seen bés di kontaan ci yéen tamit di leen ñaanal yokk ba yëg ko ci barke Cheikhul Khadim. merci beaucoup di leen jox dig daje ci lu yàggul dara sur la de des leaders ak beneen leader fi amanillah